sëriñ alxaaji ñang bay fal mi yàlla may lool ci wàllum ñaan mooy ànd ak yéen ci xew loo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëne yi tàbbe ci la xewal yi yokko shahr ramadan قدم يا حبيب يا حبيب mu ëmb leen mu gën ci weer yow na nga matal julli juróom sa xol sàkku yërmande ngela waay bu ci mooy yàlla tubal jégalul dellu ci yàlla la mën ci lu baax wul ci tay mengook safaan ba nanga ko baay na nga muñ na nga muñ dafa nekk borom moo ko digle kuréel bi dañ koy fa paas léegi est-ce que daa bari eh waaye yow da ngaa xamul ne ñun <laughs> dañuy jub weeru koor weeru mag weeru am solo ah yow dëgg dëgg dëgg nag li nga sol nii xam nga ne dëkk dëkku ko ah ci weeru koor lañ jëm sellalal ah en même temps man dama sa morom muy waxe yow ngay matt ak a bii ju ma dama sa morom dégg nga sa moromu bàyyi laa su ma waxee dëgg ba pare maanaam mot dem sama yoon dégg nga la këram ñaxaraar la kañ jaxat. waay kañ jaxat ma. wax ma lu la neex ni kañ jaxat ngay laaj. xaw ma ko te yow sax yaay kan yow yaa ma war a wax nu ma solo ak nu ma war a solo. man la Baye Jobal Ndiaye. mooy yow nekkal Baye dëkk Ndiaye sama yoon nekk boo dee lijjanti nga ne léegi loo mën a lijjanti bul ma rombati di ma wax ko wax ci soir tout à romb ma waay jëm foo ma yow yaa kii moo ñàkkee sax kii moo ña bi kii moo ñàkkee yow ku ñàkkee sëñ ah? yow kañ may bàyyi. yow xamoo ko sax kii ma di nga ko xam xamoo ko. waaw man xaw ma ko. eh man xaw ma kenn nga xam avancé na. yow eh xaw ma ko ñaxal ngir dëgg xaw ma ko ñaxal. dëgg gi ma la wax tax na ma war a gën ñaxal. waaw avancé dama gën a. ak ñoom ñaar kese ñun ñooy doon na remplir ñu nii parce que. يا حبيب رمضان yow na nga matal julli juróom yaatalal sa xol sàkku yërmande ngela waay bu ci mooy yàlla tubal jégalul dellu ci lu bon ci lu baax bul ci tay méngoog safaan ba nanga ko baal tëdd ci man di bërëngu bërëngu ba ba ak ci suuf man bi nekk ne ñëw di tëdd ci ay karaw li mooy lan at la juróom-ñaar dëkk ku dof fi gën a métti te te boo waxee ñu ne ñu ne nungut a dëkk kenn nungut a bokk kenn di kenn koo xam ah eh eh eh. waaye yow xam nga waru waaye xaw ma kay ndax dama doon nelaw. loolu yow la yow yow ah. man yow man la xool yow gaa ngi nii ndox maa ngi nii tey man ak yow ci kër gi sangu rek baa nga dee. jógal waaw xaaral amul xaaral laa la wax. fu laa may fu laa may teel si wàll bi nga may kan moo la diri. yaay foog naa nga lef jox ma sama kër kër gi nga jóg sangu ji laa wax. yow yow yow yow yow tey. yow yow. sangu yow yow ni yaay. yow yow ku soxal nga yow. yow yow am na juróom-ñaar ni yaay yaa fi gën a soxal. bul wax. yow xanaa man ji laa la wax. xam nga li ma xam nga li ma yàqal laa wax. ma maa tey yàqal la yow lan la. yow foo jublu du noy noy gu neex. xeeñ nga salte nga xamoo adduna. ma ni nga dugg ci biir laa wax bu fekkee ne da nga sumeeku nga ñëw sangu ji laa wax tey mënoo fexe fexe ba do sangu. sangu bu ma. yow yow man man maa la wax ne la man ma daa yàgg. la wax. yow ma ne sangu. ma ne da ngay sangu laa la wax. fu jëm waaw xaaral xaaral xaaral. da nga gis mi laal ma. waaw waaw xaar waaw xaw man xam naa ni may sangoo. na mun naa d'accord dem sangu jëlee. waaw waaye su ma duggee ma tànk dama yëkkati ba mu wàllu sangu mbas kaf. waaw sax yow nii xaaral xaaral xaaral. billahi tey jii gisuma ko la tee sangu yow li nga nekk dañ la cee bàyyi. gaawal génne bi laa ah. wax. yow yow ni. xoo xoo nijaay ak demaa ci yam bàjjan ak jumpaañ. Eh, eh, suñu yëngu kaw sangu. eh yaa kaw sangu. man ni yaa wéerul wéerul. Eh, jugaat na jugaat jugaat na jugaat na. kaw sangu. inna ilahi wa inna ilahi rajiwoona. jëlal si ndox bi nga nga laay sa kanam ba pare ngay inaan laay jógal jógal jógal. Ah, kon bu ko defee ñu tublu ci kayit yi tàgge yi. sëriñ Xaadim Cuun sa Touba si xaw ga Kolobaan di sëriñ si ki gaañu sëriñ Bekaay sa 28 di mbokk si ki gaañu waaw ñoo ngi leen di tàgge ah sëñ Mahamadan Lo ca Daaru Xudoos si sëriñ si ki gaañu ah, waaye Cuun ba tey ñu ngi koy tàggewaatu taalibeem ah, njaxat mooy waaja dee ñànku de sa mbàkkee koy waaja rey ah, loolooy loolooy loolooy ndigal li waaw waaw waaw fa lañ jógal dee jógal taxaw nga ma lay la eh! lay lay de di moom waa bàyyi wax ay wax sangu yow yow nijaay yow ndax nga mën nga ma bàyyi wax wax sangu bàyyi naa ko Iba waa yegg si ma lay lay waa kaay kaay kaay ñu ma lay lay kaay foofa laa jëm li eh, yàgg sukal sukal sukal gaaw sukal ah, eh, kaay kaay kaay fi eh, ah day rew day rew du koy ñaan loxo si biir ndox du du ko wax ba ba sëgg sëgal ba waxoon sëgal waaw ah, ah, xaaral xaaral sëgal si ndox bi sëgal si ndox bi yaa yaa yaay yaa yow tiraanga rek nga xam ñànku ñànku de xale bu am talent bi ci Mbàkke Bawal yow koo mos a bokkal bàyyi na la xel alaaji dani mu too mooy sa bàyyi sa nijaay ah, eh, eh, yow yow yaay Faramareen bi nga xam ni ñëpp bëgg a mel ni yow waaw kar masalla a ah, jiin ci eh, ah, xeen ci bàyyi xeen ci yaay a yow yow nit ku baax nga yow yow waaw waaw yow yow yow yow yow nee naa la sëriñ Xaadim Cuune sa sëriñ ah ah yow yow koo mos a bokkal bàyyi na la xel baax gi yaa rafet kaar baaxi yaay baaxi bàyyi yow yow gën ñëpp kenn gënu la. da ngay tàkku nag woyal woyal moom woy bu neex. ah waaw. ñàngu paaka bi laa la laaj ñàngu paaka bi laa la laaj. ña paaka bi laa la laaj ñàngu paaka bi laa la laaj tàggu naa la ba jëli ba laabee. sëriñ xaarim tuun di ma woo ma ànd ak ñàngu dee wuy may naa la ka may naa la ka. gis gën may naa la ka may naa la ka gis gën gis fax. jël naa ko jël naa ko. ay waay mani paaka si bëri. ma ni adduna sax suur yàlla da lay woon boppam ku aayewal sa moom. ah sukkal. Eh, ànd sa sago ànd la sa sago xam naa li ma la wax maa nga toll fee dina dégg nga xool ak o ah, ah, ah, waaw kay. ginnaaw nag yàlla daal dogaloon ma waroon dee. waaw nga ni ma damay danga ma fii bàyyi. waaw yéen ñaar yéenay bokk déegi. ma ne ma waay waay waay waay waay waay waay waay boo ay buusee ñu saam la daggate la ñi la war a lekk lekk la ñi la war a maafe maafe la ñi la war a dama daal dama daal loolu nit mënu ci dara njaxat diglu max la nit ku baax day nag sagom man dama tolle fee maa ngi lay seet bu ma ñëwee dama eh, wax jaaral jaaral jaaral dama lem la wax dama doy lem la wax dama doy lem la wax ma ne waaw wax naa ko waaw xam nga li problème waaw yow lan moo say tànk man sama tànk mooy da ngay sama wëlëru bu yàgg yoo xam nga loolu bu baax ma ñëwoon fii ci sa kër gi seet si la fële am na na mu demee saase na dëkk ba dëgër na damaa ñëw la féete ci yow ngir ñu mel na na meloon fii laa bëgg di daan sama doole <laughs> doo ko bañ sama xarit taxawal dama saase de gisoon gis naa ko mais njaxat teel paaka bi bu baax lu am solo ngi noonu wax ju am solo ngi déglu ko wax ju am solo ngi noonu teel sa paaka bi njaxat teel sa paaka bi waaw saase di bàyyi waaw waaw damaa la ngir ñu kay ganu koor moom xam nga ne ko waaw mais la njaxat man man man a yow ñu woor la man damaa ñëw pour dimbali la dimbali waa ah il faut nga ma. léegi man damaa mu dof. waaye. <laughs> te te yow su réewoo ak moom. xanaa kii. waaw ab la. dof la waaye mais woon laay teraanga bu boole koog sa suñu daan suñu daan cële el boobu ko fa ci si saa loolu day dara loolu mën naa ko di ma sama diggante am solution waxoon naa ko ana man laa ba. man ma ah. tegal ma tegal ma taxaw na wóorut Sénégal dëkk. waa cooju ginaar yi yow. waaw demal ci biir rek yow itam bul yóbbu sama saak.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 ya Allah loo ci ñaan may la ci jéggalu mu baal ci la ngëneel ci la xewal yi yokkoo shahr Ramadan ya karim Ramadan ya habib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 jotaay bi nag